kontaan rek bëgg ah naa lool vraiment surprise bi aussi ça m'a beaucoup touché xam nga comme euh, ni muy def ñeneen ñi rek parce que man foogeewu ma woon ne wax dëgg yàlla euh, fans yi ak sama xarit yi ak sama frère yi yëpp toll nañ euh, ci man ci toll nañ ma fi quoi vraiment vraiment fu féete nañ ma fa te. dama kontaan sama xol dafa sedd mënuma sax wax waaw mënuma sax wax waaw waaw euh, vraiment lii moom euh, mën naa ne source de motivation la aussi dañ may encourager bu baax a baax a baax du tey rek lañ ko def mais nag euh, lii dina tax ma gën a fas jom gën a liggéey lépp lu ñu bëgg ma taxaw ci incha allahu rabbi euh, te damay ñaan di ko feete ak ñoom di àndandoo ñoom bay taxaw bersi incha allah di ko feete ak ñoom.